li nga xam ne moo xew ci Kaolack commune donc ñu tudd ci ay xaj dafa am loo xam ne moo ko waroon a firndeel bu fekkoon dañ ne ñoom militants yi électeurs yi génnuñ voté ji taux de participation électorale bi am ci Kaolack ci élection yi musul am ci élection locale kon loolu méngoowul ak ñoom li ñu wax ne nit ñi génnuñ wote ji ndax nit ñi buñ génnuloon wote ji logiquement taux de participation bi dafay faible kon bu ñu tegoo ci xam-xam loolu li tubaab di wax incohérence moom la mais dafa romb sax loolu ci wàllu républicain ñu gis ne tuuma yu mel noonu sax ñun jéggi nañu ñun waa ànd nawle mais dafa dem dañoo dem bay tuumaal suñ police nationale bi nga xam ne ay jàmbaar lañ mais gannaaw loolu li nga xam ne moo nekkaat li méngoowul ak yoon te nekk incohérence mooy loolu yëpp centre de vote yooyu yëpp ñuy wax bañ demee ca nga xam ne fa la ñuy attee muy tribunal commission départementale bi bi ñu dépouillé amul benn PV boo xam ne commune Kaolack relaté nañ fa lu mel noonu PV yëpp RAS lañ ciy def wala duñ ci bind dara donc fu mel ni Coofiyoor wax nañ ko comme dañ leen fa dóor dóor yu métti muy commune Ndiafat ñu ne nañ ko annulé alors que euh, ci wàllu élection sous préfet wala préfet am na sañ-sañ bu ñu demee ba 18 heures jot te wotekat yi jeexuñ mu ne yokku naa ko ba tel waxtu Coofiyoor looloo fa xew te kayitu préfet boobu arrêté bi mu ngi ci PV yi gis nañ ko kon ay wax la yoo xam ne wax yu teguwul fenn la loolu nag bi mu amee vraiment euh, ñu euh, def jàngat ñun ne nañ génn wax ak département Kaolack bi nga xam ne ñooñu óolu tànn ñu fal ñu ci conseil départemental pour ñaa mbir yu bari benn dalal seen xel wax leen ne ñun ay républicain lañ xam nañ li xew xam nañ fi dëgg gi nekk te dëgg ji suñ côté la nekk